ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نيو te di leen jéggulu tàmbalee ci nuyoo bi suñu kilifa yi fi toog Serigne Bousso bi miti alquran alquran tax koo jóg ak sunu kilifa Serigne Khadim imaam ñu ñëw ngir alquran te mu yell yàlla leen yàlla fayal te yàggal leen sàmm leen di nuyu nag ki nga xam ni moo di jàngalekat bi nga xam ni ab liggéeyam moo doon feeñ tuuti ca la mu def ndax li mu def lépp mënisu ko wane ci weer walla ay weer kon nag liñ ciy def lu mu tuuti tuuti rek doy na ndax dañuy xamle rek ni mi ngi ci liggéey te liggéey bi tegu na ci yoon yal nañ ko yàlla fayal fayal nu itam waajur yi ndax jàngalekat bii nag lu mu jàngale jàngale it bu amul waajur yu ko taxawu ci xele yi du am ku mu jàngal mbaa bu amee ku mu jàngalit du am ku ko soññal xele yi ndax moom daara ji la am waaye lay jóge ci kër ga ba ci daara ji nag waajur la kon waajur yi itam jërë ngeen jëf ñoom ñëpp ay jàngale jàngalekat lañu bu yàlla fay ñëpp lay fay yoolub jàngale kiy jàngale ak ki indi ki ñuy jàngal ak ki jàng ci boppam ñett ñooñu la borom bi boole dugal aljanna jamono bu ñu tàmbalee liggéey bi kon ñoom ñoo ko bokk ak ka fa romb yéeneem àgg ci jël daraam def ko ca daara ja kooku it ci ñooñu lay bokk euh, kon nag noo ngi bég lool ci teewe gi ñu teewe ji taay bii ak lii nu fi dégg ci ay ahkam al fiqhiya atey yu rafet yoo xam ne bu nu fekkewul tare yeneen yi doy na xam nañu ni la génne loolu alquran jiitu kon mën na noo woon li ci des kon na yal na yàlla fay ñëpp te xale yàlla bayyi leen fi euh, sàmm leen ba ñoom it ñuy toog di teewul ëllëg seen njaboot ñuy def lii te ñu xam ni lii ñu def seen góor góorgóorlu waajur la waaye ñoom seenu góorgóorlu ma nga ca kanam mooy la ñuy wane ñoom ci seen jaboot benn boroom xam-xam moo nu ko mas a wax ku ñuy wooye alxaaji ibbu saaxo rahmatullahi alayhi dafa ñëw ci àggaleem prix alquran mu ñu doon def ca itum ñaari tël yi nit ñi gërëm ak a sant ñiy firi ba mu jëlee parole mu ni man duma leen gërëm duma leen sant ndax defuñu dara ñu ni lu tax mu ni ñoom seeni waajur a def dañuy xaar ñoom ba ñu ñëw ak seen njaboot nu xool seen njaboot na mu mel ma xam ne ñii ñu ngi liggéey kon nag seeni waajur tey ñoom wane nañu seen war seen warugal yéen nag ëllëg yéen ci des alxuraan ku ko jàng ba mu mokk yonent bi nee na moo gën a gaawoo rëcc aw mol kon nag lay tax mu rëcc bul ko def te mooy bàyyi ko ku ko ci mokkal na nga xam ne am nga valeur wu rëy am nga lu kenn amul ku am lu kenn amul da koy téye te téye ga mooy di ko tari jamono bu ne di ko yittewoo jamono bu ne bëgg ko lool lool yi lañ leen di dénk yéen xele yi nga xam ni yàlla dimbali ne leen ngeen wattu téereb yàlla bi kon wéy leen ak moom ba kere ngeen di daje kay fay ka nga xam ne noon na alquran araf woo ci def yàlla fay la ca nangam te ba mu koy wax nee na jubluwu ma ni alif laam miim mooy araf bi alif laa wax aw araf la laam araf la mbiim araf la ba alquran jeex wenn araf woo ci jàng am nga tuyaa ba ju tol noonu kon nag boo mokkalee lépp taxul ñuy wax kon yal na yàlla fay waajur yi sëñ Malick ñu ngi lay gërëm di gërëm njaboot gi ak ñi nga bokkal euh, doom yi ba indi leen ci daara ji loolu nag seen jubluwaay la seen bëgg-bëgg la ndax jàpp naa ni daara ji nu jëkk a sanc ñoom ñi seeni doom ñoo fa jiitu te ña fa jëkk a mokkale la ñu bokk kon yàgg nañoo bëgg alxuraan yàgg nañoo fonk alxuraan kon bu lii amee sunu mbégte lay doon xam ni ñoom kat ñoo ngay taxawal la mag ña doon taxawal démb te ñoo nga ca yoon wa mag ña jaaroon démb te mooy fonk téere bi bëgg téere bi def ko muy seen lépp lu ñu mën a def loola jumtukaay képp la boo dee bay jumtukaay la boo dee commerce jumtukaay la waaye sa jumtu sa jëm li nga bëgg a am dëgg-dëgg mooy alxuraan ak la alxuraan làmb kon yal ne leen yàlla fay te jox leen itam nag yoolub alxuraan te yàggal leen fi lool ngeen yàgg a taxawu xele yi ba ni ngeen ko bëggee ngeen amee ko ni mbaanu ko raw eh, kon nag ñu ngi jéggulu ndax tey dafa xaw a xat te yu mel nii dafa xaw a bari ci dëkk bi te fenn fu ne ñu bëgg faa jaar rek barkeelu fii da di foo xam ne ni mënit ci dara ndax dafa bokk suñuy barab kon nag noo ngi sant yàlla ci ñëw giñ fi ñëw di ñaan yàlla ñu ñëwaat fi nag at yu baree baree bari ñi nga xam ne ñooy tari di fukk ak ñett ñoo ngi leen di ñaanal yàlla defal leen ndam ci alquran defal leen ak dégg ci alquran defal leen yool bu mat te ngeen yàgg ak alquran am na ay kaamil yoo xam ni Serigne Abdoul Ahad soo ay bu moo ko bind ci loxoom fukk yooyu ak ñett yaakaar naa kenn ku ne danañ ko jox benn ngir jéem ko ko neexale yal na yàlla barke lépp kon nag euh, ñu ñëw jël téere yi jërëjëf yal na yàlla fay leen ñoo ko neexale xale yooyu le yal na doon ay téeméer nag beneen yoon jërëjëf wasalaamaaleykum wa mooy gën gi cadeau muy alquranul karim ci mbind moo xam ne mbind mu jaar yoon la moo xam ne ñu nekk ci daara ji mokkal alquran wala ñu nekk ci daara ji mën nañ cee sax bind su ko defee loolu dana rafetal seen loxo lool ndax sëñ Abdullah Chouaïbou bindkat bu mag la kaamil yi daara ji am nañ ci mbégte bu baax ci teewaay bi ak cadeau bu am solo boobu ñi ngi dalalaat mbokk yëpp rek ci jotaay bi tedd bi di jotaayu alquranul karim sëriñ xadim loo imaam mi ngi ci jotaay bi ñu ngi koy dalal bu baax sëriñ Cheikh Awa Balla Guèye mi doon wax léegi ñu ngi koy dalal moom tamit daa mel ne day waaj a yewweeku sëriñ Bousso tamit ñu ngi koy dalal bu baax sëriñ Malick Sy ñu ngi koy dalal ci jotaay bu baax sëriñ Cheikhouna Sy Habib ñu ngi koy dalal bu baax a Seydou Diallo ñu ngi koy dalal bu baax ak mboolem sëriñ daara yi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi rawatina waa daaru daaru miftahu nasr ñu ngi leen di dalal bu baax ci njiital ci teewaayu sëñ Ahmad Senaba Diop ak euh, mbokk soxna yëpp rek ñu ngi leen di dalal bu baax ak parents d'élèves yi ak euh, oustaz Aliou Sall ñu ngi koy dalal bu baax a baax sëriñ Fadilou Gaye moom tamit teew na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal bu baax sëriñ Mouhamad Yaasin Diop di doom ci sëriñ Mor Diop Ndar moom tamit teew na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal bu baax a baax a baax kon xam naa ñu jox xale bi waa jàkka ji tamit seen teewaay ñu ngi koy dalal ci njiital imam Cissé ñu ngi koy dalal bu baax ci jotaay bi kon xam naa dañuy jox xale bi nga xam ne moom bokk na ci kenn ci xale fukki xale ak ñett yi wattu alquranul karim su ko defee ñu wëyale liggéey bi rek jox sëriñ Amir Gaye mu laajal ñu ko moo toog noonu mooy sëñ Fadlu Ndaw di doom ci sëriñ Daam Ndaw ak soxna Nday Ami Fall dëkk Dakar asalem siis bismillah sëñ Amir kon sëriñ Ousmane ni ko waxee noonu rek la di rafetlu bu baax a baax a baax jataay bi ni muy doxe ci suba ba léegi mën nay wax ni a istajibu lillahi wa lirrasuli iza daakum lima yuxyikum yéen ñi nga xam ni gëm ngeen na ngeen wuyu wooteb borom bi subhaanahu wa taala ak wooteb gu yonent bi sallallahu alayhi wa suñ leen woowee ci loo xam ni day duddal seen xol kon mel na ni wuyu si nañ jataay bi waaye bi ñu wuyusee tamit yaakaar naa ni jataay bi nee na tekk tekkaaral di diglu alquran kon mel na ni jafe nañ wa ida xuri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamuun kon boog ñu ngi ñaan yàlla mu boole ñu ci lim naan inna allazina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaquu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaratan lan tabuur li wa yazidahum min fadlih yàlla nañu boole ci aaya boobu kon yaakaar naa ne jataay bi rafet na xale bi toog ngeen jàkkaarloo ak moom sëriñ Fallou Ndaw mooy suñu juróom-benneelu xale ci xale yi nga xam ni wattu nañu alxuraan ci ren jii muy fukki xale ak yat kon sëriñ Fallou أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين بسم الله سيفالله الصادقين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله jërëjëf sëriñ Fallou Ndaw yaakaar naa ni a ku diglu alquran ji nga doon jàng sànq dana xam ni yow moom sam njàng rafet na lool waaye ñi la doon jàngal tamit def nañ ci yitte ju mat sëkk kon boog ñi lay ndokkeel bu baax a baax sëriñ Fallou di ndokkeel say waajur di ndokkeel ñi nga xam ne ñoo la doon jàngal kon yàlla ñu yàlla boole ci aaye bi nga xam ni moom la mujjee jàng inna allaha maa allazina taqaw wallazina hum muxsinuun sëriñ Ousmane jërëjëf sëñ Amir Gaye ci xale boobu nga xam ne moo doon tari léegi alquran ju jaar yoon ji sëriñ Fadlu Ndaw ñu doom di sëriñ Daam Ndaw ak soxna Nday Ami Fall dëkk Dakar asalem siis xam naa ñi ngi sàkku ci moom mu wàcc su ko defee sëñ Xaadim Lo imam joxal ñu ko shahadaam ñu ngi sàkku ci sëriñ xaadim loo imaam mu dikk joxal ñu sëriñ fàdlu ndaw moomu doon tari shahaadaam su ko defee ñi ngi dalal bu baax oustaz kay di imaamu Sacré-Cœur ñi ngi koy dalal ci jotaay bu baax comme ni nga baaxoo woon di ko defee ñi ngi koy dalal di am mbégte ci teewaayam bu baax a baax xam naa kon dañuy woo xale bi ci topp rek muy sëriñ Cheikhouna Ndiaye yi doom ci sëriñ Ahmad Ndiaye ak soxna Alimatu Jaw dëkk Bambey bismillah sëriñ na Ndiaye waaw sëriñ Ousmane kon kooku mooy sëriñ Cheikhouna Ndiaye euh, mooy suñu juróom ñaareelu xale ci xale yi nga xam ni wattu nañu alquran fii ci ren kon sëriñ seexu Cheikhouna xam naa ñu njëkkanteeg jataay bi rek ndax mel na ni li ñu dese ci waxtu daay day mel ne bëreetul kon auzu billahi min alsheytani arrajim fala uqsimu bi mawaqi'i nujum bismillah njàng mi tabaarakallaahu rafet na lool euh, li ci aju ci ahkaamu tajwid mel na ni sëriñ Seexuna sàmm wante nga ak moom bu baax a baax a loolu day wane rek liggéey bi nga xam ni daar ji ñu ngi koy liggéey ci taxaw xale yi ak jàngal leen alquran ak pasteefu gi nga xam ni am nañ ko ci wàllu liggéey bi kon sëriñ euh, Ousmane kooku mooy suñu juróom-ñaareelu xale ci xale yi nga xam ne ñoo wattu alquran jërëjëf sëñ Amir gay ñu ngi lay sant bu baax di am mbégte ci xale yi nga xam ne ñooy jaar di njàng-njàng mu leer njàng mu am solo sëriñ Cheikhouna jaay kon ñi ngi sàkku ci yow nga wàcc moom bi nga xam ne doom la ci sëñ Ahmad Ndiaye ak soxna Alimatu Jaw dëkk Bambey ñu ngi sàkk mu taxaw su ko defee ñu woo sëriñ Bachiru Fall mu jox ko diplôme am shahadaam ñu ngi sàkku ci sëriñ Bachiru Fall mu dikk jox sëriñ Seexuna Njaay moom doon jàng alquran te bokk ci fukk ak ñett ñi nga xam ne wattu nañu alquran mu dikk jox ko shahadaam xam naa kon dañuy jàll ci xale bi nga xam ne moo ci topp muy sëriñ Ibrahima Njaay di doom ci sëriñ Alxaaji Njaay ak soxna Nday say dëkk Bawal bismillah sëñ Ibrahima Njaay xam naa laata loolu ñu ngi dalal bu baax sëriñ Abdul Xabir Mbakke mi ngi ànd ak ñun jotaay bi di dalal bu baax a baax ay ak am mbégte soxna Bintu ma Masamba moom tamit ñu ngi ànd ak jotaay bi bisimilah sëriñ Amir waaw <coughs> kon sëriñ Ousmane di sant bu baax rek ak di rafetlu jotaay bi ni nga xam ni noonu lay doxee ci suba ba léegi yaakaar naa ni amagul benn buru wi boo xam ni dana dox suñu digganteeg njàng mi kon ñu ngi sant ñu fi teew ñëpp di xam leen ni rek dongo bi ngeen gis ci kaw mooy sëriñ Ibrahima Ndiaye sëriñ Ibrahima Ndiaye moom lañ bëgg a àndal mooy suñu juróom ñetteelu xale ci xale yi nga xam ni wattu nañu alxuraan fii ci daara ji kon sëriñ Ibrahima Ndiaye bismillah a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim فنبذناه بالعراء وهو سقيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيموا ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون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 وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون sadaqallahul azim baax na jërëjëf sëriñ sëñ Ibrahima Ndiaye sa njàng mi rafet na rafet na lool yàlla ñu yàlla euh, jox ngëneel li nga xam ni tiyaaba ji nga xam ni moom la dikk ñi nga xam ni dañoo daje di jàng alquranul karim tiyaabu ju rëy ji nga xam ni da ko dikk ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu jox ñu ko insha allahu taala jërëjëf sëñ Amir Gaye ñu ngi am mbégte bu baax ci laaj yi nga xam ne yaa ngi koy laaj xuffaas yi mooy ñi wattu alquranul karim su ko defee sëriñ Ibrahim Ndiaye moom doon tari léegi ñu ngi sàkku mu taxaw su ko defee sëriñ Modou Fall ak sëriñ daam njaay lañ bëgg ñu dikku jox joxal jox leen jox ko diplôme am sëriñ Modou Fall nag waa daara ji nga xam ne moom ko am yitte la ci daara ji bu baax a baax day taxaw daara di ko jàppale bu baax a baax mbooleem li ngeen fi gis ci ab baas ak décoration bi ci aju lépp moom moo ko def kon moom mi ngi def lu baax waaye di jàppale daara ji di taxaw daara ji bu baax a baax waa daara ji ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax ci moom su ko defee sëñ Abdul Xabir Mbàkke mi ma doon wax léegi moom moo fi bàyyi ko ci daara jiñ tuddee soxna ma Masamba moom tamit waa daara ji ngi am mbégte ci ab teewaayam bu baax a baax a baax sëriñ daam Diop moom tamit ñi ngi am mbégte ci ak teewaayam mi ngi ànd ak ñun jotaay bi di borom daara yi Miftaaxu Nasri mi ma présenté woon léegi ñi ngi am mbégte bu baax a baax ci ak teewaayam kon daal sëriñ Ibrahima Ndiaye boo nekk noonu ñuy jox li nga xam ne moom mooy diplôme am xam naa su ko defee dañuy woo xale bi nga xam ne moo ci war a toftalu rek di sëriñ Modou si di doom ci sëriñ Ahmadou si ak euh, soxna ma xawa si Touba kon euh, sëriñ Modou Fall moo nekk noonu di jox diplôme bi euh, ànd ak rakkam sëriñ Daam Ndiaye nga xam ne ñoom am nañ taxawaayu bu rëy ci daara ji di jàppale daara ji bu baax ñu ngi leen am mbégte bu baax ci ñoom waaw suñ Ousmane ni ko waxee leer na suñ Modou Fall moomu ñu ñaanal ko sunu borom subhanahu wa taala mu gën koo dëgëral gën koo jàppale ci ab liggéeyam ba mu gën a mën a taxaw daara ji liggéey bi rafet na lool wax dëgg yàlla xol sedd na ci alxuraan ji nga xam ni moom lañ fiy dégg moom la fi xale yi di jàng ci suba ba léegi ñu gis fi am njàng moo xam ni njàng mu rafet la njàng moo xam ni mu jaar yoon la njàng moo xam ni mu rafet la kon suñ Modou Fall ñu ngi lay sant bu baax a baax ñun waa daara jépp ci taxawaay bu rafet bi nga xam ni moom ngay taxaw kon yaakaar naa ñu njëkkanteeg waxtu wi sëriñ Modou si sëriñ Modou si di doomu sëriñ Ahmed si ak soxna Ayda Mbay dëkk Touba sëriñ Modou si waaw kon mbokk yi ñuy fàttali bu baax rekk xale boobu ngeen di gis mooy sëriñ Modou si mooy suñu juróom-ñeenteelu xale ci xale yi nga xam ne wattu nañu alquranul karim seen lim toll ci fukk ak fukki xale ak ñett kon sëriñ Modou أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما بسم الله سيد مود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر كلا إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نسيما يستطيع يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكتب يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم Serigne Modou Sy Serigne Modou kooku mooy Serigne Modou Sy Serigne Ousmane moo doon suñu juróom-ñeenteelu xale ci xale yi nga xam ni wattu nañu alquran ci barab bi kon Serigne Ousmane kàddu gaango jërëjëf sëñ Amir Gaye sëñ Modou si jërëjëf yal yàlla def la ngay mag te barkeel la bu baax a baax sëñ Modou si di doom ci sëñ Ahmad si ak soxna Ayda Mbay su ko defee ñi ngi sàkku ci moom mu wàcc euh, sëriñ Abdul Xabir Mbakke joxal ñu ko shahaadaam sëñ Abdul Xabir ñi ngi sàkku ci moom mu ñëw joxal ñu sëñ Modou si ab shahaadaam su ko defee comme niñ ko waxee woon léegi rek xale yi wattu alquran ci daara ji ngi tollu ci fukk ak ñett waaye day mel ne lu mat juróom-ñeent ci ñoom day mel ne jaar nañ fi fësal bu baax a baax njàng mu rafet gi ak xefzu googu nga xam ne daara ji seede nañ ko ci ñoom xam naa balaa ñuy ñëwaat ci jotaayu xam-xam bi nga xam ne xale yi tàmbali woon nañ ko fi léegi am na ay way am solo yoo xam ne dafay jëm ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne xale yi war nañ koo amal léegi kon ñu ngi sàkku ci xale yi ñu sàppe sàppe yu jub rek su ko defee al amdaax an nabawiya yooyu ñu jàllaleel ñu ko bismillah kon ñu jël micro bi jox ko xale yi su ko defee ñu jàllale am ndax yooyu bismillah kon ñi ngi sàkku ñu jël micro yi su ko defee jox ko xale yi ñu commencé am ndax yooyu bismillah sëriñ bi nga may ma nga may ma ñaari minute rek dimbali ma rek dama la ko ñaan ngir jëmbi alxuraan mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi yëkkati samay kàddu di sàkku ci mbooloo mi yépp nag boobu ba léegi xale yi ñu ngi ñuy teral ci alquran boobu ba léegi xale yi ñu ngi ñuy jàngal sunu diine waaye kenn ku ne xam na ni yore ay xale dafa metti may sàkku ci mbooloo mi li des ci tabaski bi nga xamante ni xale yi dañoo war a dem seen kër waajur yi maa ngi ñaan képp ku nekk ci tànt bi téeméeri junni laa soxla téeméeri junni mooy li des ci dundu xale yi fi ak tabaksi dama sàkku ci mbooloo mi kenn ku ne li nga am nga ñëw indi ko fii ñu dajale ko jox ko sëriñ daara bi ndax boobu ba léegi xale yaa ngi jàng alxuraan mbokk yi te gisuma kenn koo xamante ni jug na teral waa waa taabal bi kon maa ngi ñaan bu dee soxna yi dañoo sori na am ku dem taxaw foofu laajal ma soxna yi waaye góor yàlla yi fi nekk yépp kenn ku ne la yor nga ñëw barkeelu ko ñu def ko ci dundu daara ji bu kenn xeeb dara waaw bu matul téeméer déet sëñ may ma rek dimbal leen ma rek dimbal leen ma rek deux mille rek ngeen may may waaw kenn ku ne làmbal li nga yor rek ñu indi ko fii ngeen baal ma baal leen ma tuuti rek waaw ndax alquran mbokk yi dafa neex te xale yi léegi ngi doon jàng alquran jàng nañ fi alquran gu neex bu am solo kon nag képp ku nekk ci tànt bi rek maa ngi sàkku nga ñëw li nga yor ñëw terale ko alquran te xam ni lu ci waay def rek doo ko rëcc jërëjëf Baye Malick ñu ngi lay sant bu baax bu ñu gisee sunu teewaay fii moom mii moo ñu fi indi ndax ñun internat nañu yor fële sa Thiès fële sa Kër Massamba Gueye waaye dañoo ñëw gis liggéey bu rafet bi sëriñ daara yi liggéey maa ngi ko koy dee léegi nee naa ko sëriñ daara yi nekk fii di ay jàmbaar nañ wax dëgg yàlla kon ñëw leen mbokk yi bu kenn xeeb dara lu waaye am na ko ñu def ci barke alquran la fay la sa yéene ndax man amila salihan fale li nafsihi képp ku jëf lu baax sa bopp rek nga ko defal rawatina nag nga def ko ci loo xam ne danga fekk xale yi nga xam ne amuñu bakkaar nga jël li la yàlla terale nga jël ko di leen ko jox ñu koy dundee loolu yiw gën a koo rëy kon yàlla yàlla fay ñëpp ci képp koo xam ne daa jëf ak moo xam lu néew la wala lu bari la yàlla yàlla fay ñëpp te yàlla defal ñu barke ba alquran kon ñu bàyyi xale yi rek ñu def al amdah an nabawiya yooyu ñu teewul leen bu baax a baax bismillah amdaax yi am na solo lool tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam yal na yàlla def leen ngeen ay mag yàlla def ngeen wattu alquran te mu ànd ak barke xam naa sëñ Modou si mi doon tari léegi day mel ne soxna Ayda Mbay yaayam ak maamam dañ koo bëgg a jox ay kado ñoo taxaw su ko defee ko ñu jox leen ñu jox ko kado bi rek dafa mel ne diplôme bi joxoon nañ ko ko waaye daa am cadeau yoo xam dañ koo jagleel ngir bëgg goo xam ne am nañ ko mbégte ci seen doom ci wattu gi nga xam ne suñu boroom euh, defal na ko ko alquran ji mu ko defal ci dënnam ñu am mbégte ba tax ñu yëkkati cadeau yooyu di ko jox mooy sëriñ Modou Sy kon yaayam mooy soxna Ayda mbay ak maamam ñoo koy jox kado noonu kon xam naa sëñ xaadim euh, loo imaam day mel ne day waaj a tàggatoo moom tamit balaa xale yee àggale li jotoon ci li desoon ci jotaayu xam bi dañ koy jox mu yëkkati ay kàddu rek sëriñ xaadim loo imaam incha allahu taala bu ko defee xale yi mën a wàcc ñu àggale jotaayu xam-xam bi nga xam ne bu amoon solo la ñu laajoon ci ay laaju fiq yu am solo ak loo xam ne lépp lu jëm seen diine loo xam ne képp ko fi teew rek yaakaar naa jariñu nga ci bu baax a baax a baax kon ñu bàyyi leen ñu wàcc su ko defee ñu jox sëñ xaadim loo mu am kàddu yu gàtt yu mu yëkkati rek incha allah taala bismillah kon day mel ne kon sëñ imaam dafa wax ne day wa day taaxeerlu xale yi ndax jotaay bi dafa am solo day taaxeerlu xale yi ci xam-xam bi nga xam ne ñu ngi koy ballul di ko fi génnee su ko dégloo su dégloo xale yi loolu ñuy génnee ba noppi su ko defee mu yëkkati ay kàddu doog a ko kon bismillah salaamaaleykum wa mbokk yi kon dañuy woyal suñu laaj yi waaye njëkk ñuy laaj dañuy jox suñu mbokk Aliou Sall mu ubbi nuyoo waaye jàllale kàddu xale yi ci arab bismillah sidna ali falakal kalima tafaddal mashkura muy àggale yi dafa mel ne kado yi luñ kan lañ ko jagleel sëñ Mor si moom men moom benn kado bi bi ci des xale bi moo ko moom bi ci des Babacar Ndaw moom lañ ko jagleel kado boobu noonu muy cadeau yoo am solo yoo xam ne nee na boobu sëñ Babacar Ndaw lañ ko jagleel benn bi xale bi day mel ne euh, soxna soxna Ayda Mbay ak maamu xale bi ñooy joxe ay cadeau noonu benn bi yaayu daara ji lañ ko jox benn cadeau bi ñu ngi ciy am mbégte bu baax di ñaan yàlla mu barkeel ko jeex na wala des na ba léegi beneen cadeau bi ci des kon ñu ngi ko jagleel xale bi Babacar Ndaw nekk kon jërëjëf jërë ngeen jëf yàlla yàlla barkeel bu baax a baax kon ñu bàyyi xale yi ñu continuer incha allah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi kon dañu wëyal suñu laaj yi waaye njëkk ñuy laaj dañuy jox suñu mbokk Aliou Sall mu nuyoo ubbi waaye jàllale kàddu xale yi ci arab bismillah sidna ali falakal kalima tafaddal mashkura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أيها الحفل الكريم أصحاب السعادة والفضيلة سيادة الوفود الحاضرين فضيلة الآباء والأمهات جيراننا المحترمين nuxayikum jamian taxiyata taqdirin wa ixtiraam alaa wa hiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kama naxussu biddikir asaatidatana al ajilla alladina fa bidunihim la yastatiu ayu fardin minna an yutqina amalahu wa yuxaddida mustaqbala wa fi muqaddimatihim Serigne Mor Sy wa jamiici rufaqaa'i darbihi fi haadihi almuhimmati aljalila wala nansa asaatidatana fi lfaransiya assayidu Diallo assayidu Dem assayidatu Njaay fa jazaakum allahu anna xayra aljaza wa shakara masaakum wa kataba lakum najaaxan fi mashruucaatikum wa waffaqakum limaa yuxibbu wa yardaa duyuufana alkiraam innahu la sharafun cadiimun lanaa an nastadiifakum fi haada almajlis almubaarak majlis alsacaadati walbaraka wa naquulu lakum ahlan wa sahlan wa marxaban bikum fa inna haadihi aljalsa كما قدمها أخونا شيخنا نجاي تعودنا القيام بها في حفلاتنا السنوية إنها جلسة علمية قيمة لما فيها من المسائل الدينية والاجتماعية ولذلك أرجوكم أن تتابعونا وإن شاء الله ستستفيدون منها في نهاية المطاف وفي الختام نرفع أسماء آيات الشكر والتقدير إلى كل من مد لمعهدنا هذا يد المساعدة ماديا أو معنويا ونتمنى للجميع حياة محفوفة باليمن والتوفيق والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Aliou Sall ci tontu ba jërëjëf Serigne Aliou Sall mbokk yi kon dañu continuer laaj yi suñu beneen laaj mooy la mooy waqfu nga waxal ñu lenn ci ay ngëneelam bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waqfu de lislaam digle waaye soññee ci bu baax mu bari lool yit ay ngëneel waqfu mooy jël sa alal jagleel ko jaam yàlla yi mën naa nekk jàkka joo tabax mën naa nekk hôpital boo tabax mën naa nekk yit kër goo tabax luye ko lu ca génn ci njariñ nga jagleel ko ñiy yëngu ci lu baax wala ñu ñàkk ñi wala nga tabax école wala daara jébbal ko jullit ñi ay ngëneel yu bare bari nekk na ci dana doy rekk ci ay ngëneelam xadiis bi ñu bëgg a wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne doomu aadama saa yu faatoo jëfam yépp day dakk maanaam amatul dara lu ko mën jariñ fam nekk lu dul ñett ñett yooyu ba ca jiitu mooy sadaqa jaariya te mooy saraxe bu sax te loolu mooy waqfu ba tey ñaareel ba mooy xam-xam boo xam ne des na ca jariñoo ñetteel ba mooy doom ju baax jum fi bàyyi joo xam ne da koy ñaanal waaye mbokk yi saa yoo xamee ne nit ki jël na lenn ci alalam jagleel ko ñuy yëngu ci yoon yàlla rekk na xam ne bu faatoo it tiyaaba ja dana ko fa fekk buñ naan wax fu nag suñu xel dana dem it ci barab bi ñu nekk di daara ji ak ñu ko taxawal di sëriñ Malick Ndaw ak rakkam di sëriñ Baay Ndaw waaye suñu xel dana dem it ci suñu waajur di sëriñ Omar Ndaw di ñaan suñu boroom mu yokk ko yërmaane waaye yokk ko xéewal fam nekk waaye terte ko it ci aljana firdaws ak bépp jullit lii ñu doon wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy wax ne ida maata bnu aadama inqata amaluhu illa min salaas sadaqatun jaariya aw ilmun yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadun walahu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh jërëjëf Sëriñ Maxtaar Jóob tontu bi am na solo lool macha allah yal na yàlla barkeel xam-xam bi kon mbokk yi sunu beneen laaj ji mooy ñaan lu islam soññee la waaye dafa am ay ngàllankoor yoo xam ne mën naa tax ba nit ki bu ñaanee suñu boroom di ko nangu loolu lañ bëggoon kuñ ci defaral ay leeral incha allah asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ñande mbokk yi suñu boroom subhanahu wa taala muy nangu ñaan moo ñu ko déggal ñu koy def te ñaan dafa bokk ci ngàndaay jullit borom bi subhanahu wa taala wax na ne sama jaam bi suma ñaanee na xam ne ku ko jege laa wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata daa'i ida da'ani waaye mbokk yi lislaam li muy soññe ci ñaan lépp yit noonu la amee ay mbir yoo xam ne mën naa gàllankoor ak ñaan bi ci njëkk mooy jëfandikoo loo xam ne dafa xaraam moo xam looy lekk la moo xam looy nan la moo xam looy sol la wala loo mënti jëfandikoo ndax dañuy wax ne suñu boroom ku teey la du nangu lu dug lu teey am na benn xadis boo xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doon wax na yenn nit ñi yàlla ku teey la ku teey la mooy ku sell la du nangu lu dug lu sell waaye yàlla digal na julit ñi lim digal ay yenenteem mu teg ci ne yaa ayyuha rusul kulu min at-tayyibaati wa'malu saaliha yenent bi mas naa nettali benn waay boo xam ne dafa doon tukki ba soo ko gisee di nga xam ne kii ku sonn la ndax pëndaay bi ak kanamam gu sanse neena dem ba ci digg àll bi tàllal ay loxoom jëmee ko ci asamaan di ñaan suñu boroom yonent bi nee na jamono boobu mu koy ñaan lu muy lekk lu xaram la lu muy naan lu xaram la lu muy sol lu xaram la maanaam moom ci lu xaram lay dundee yonent bi daal di laaj ne kooku nan la ko yàlla di nangulee ñaanam kon loolu day tekki ne ku bëgg suñu boroom subhaanahu wa taala di la nangul sa ñaan del jëfandikoo lu dagan Sëriñ Tuubaa ma ngay wax naan feeg yaa ngi jëfandikoo lu xaraam say jaamu yàlla du la jariñ dara laa yanfau l ilmu wala l ibaada bil akli lil xaraami inda saada wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf mali Sakho ki tontu bu am solo bi yàlla na yàlla yokk xam-xam bi barkeel ko mbokk yi suñu beneen laaj mooy li ñu wax ak taflis français di ko wax saisir bi nga ko waxee ci lislaam lan lañ ci jublu nga teg ko ci njàngalem Serigne Touba bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki li ñuy wax saisir di at taflis ci arab nga xam ne liñ ci xamoon mooy ku yor bor dala bu mu fay jot ñu nangu alalam wala ku doon fay dem ba mënatul fay ñu nangu alalam bu ñu demee ci njàngalem Serigne Touba mu ngi ñuy leeral ne dëgg-dëgg saziir mooy ëllëg yawmal qiyaama jullit bi indi fa ay tiyaabay jaamu yàlla yu bari comme tiyaabay koor tiyaabay jokk mbokk tiyaabay julli tiyaabay aj tiyaabay umra tiyaabay joxe azaka ak tiyaabay yeneen waaye bi mu indee jëfam yooyu fekkoon na nag mu xas nit wala mu saaga ko wala mu jëfandikoo woon alalu jàmbur wala mu rayoon nit wala mu gaañ ko ak yu mel noonu nee na kooku bu egsee ëllëg yawmal qiyaama dañuy nangu mboolem lu mu defoon ci lu baax jox ko ñam tooñoon ci àdduna bu ko defee day mujj perte te du amati dara te neena du tax sax ay bàkkaaram set maanaam am na ñeneen ñoo xam ne tooñoon na leen te amul lum leen fayee sëriñ tuuba nee na subo su boobaa nu ñuy def rekk mooy dañuy jël bakkaaru ñam tooñoon yokkal ko moom ci ay bakkaaram bu ko defee day mujj nekk koo xam ne ay bàkkaar moo koy wër ci boor bu ne du amati dara lu baax sëriñ bi nee na noonu nag lañuy mujje jël ko jiital ko jëme ko safara ngir mbugal ko lii la sëriñ bi wax ne mooy dëgg-dëgg sa ziir liñ ci mën a jàngate nag mooy jàmm bu nekk war naa góor góor luwaat ci sellal digganteem ak boroomam ak digganteem ak moroomam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne tooñ ëllëg yawmal qiyaama ay lëndëm lay doon ci aji tooñ ji lu muy tekki mooy ay xat-xat lay doon ak i mbugal inna zulma zulumaatun yawmal qiyaama wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Babacar sàll ci tontu ba am solo bi yal na yàlla barkeel xam-xam bi kon mbokk yi suñu beneen laaj bi mooy lan mooy atteb ka nga xam ne dafay lekk riba wala alal joo xam ne daganul ci moom ci moyen bu mu ko mën a jëfandikoo ba am ko lam mooy atteb kooku ak mujjëm bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw lan may mujj ki nga xam ne dafay lekk alal ju xaraam maanaam alal joo xam ne daganul muy riba wala muy njublang ba lekk ko mbokk yi lu tax ñiy leeral lii dañoo toll ci jamono joo xam ne ñu bari dañuy dajale alal te daanaka faalewuñ alal ji dagan na wala xaraam na ñoom daal nan dajale di màng ret muy dem looloo tax ñu bëgg leeral lu ciy nekk ci ay mbugal rawatina sax ci ki nga xam ne dafay lekk alal ci turu diine sëriñ tuuba mu ñuy jàngal ci jàngalem ne ki nga xam ne dafay lekk alal ci turu diine kookoo gën a yées ci mbindeef wax na sax kooku ëllëg yowmal xiyaam ak biiram suñu borom dina ko réyal ba mu tonni kër ay jaan ak jiit nekk ci biiram bi di ko fete di màtt te du faat sëriñ tuubaa yokku si ne seeni biir dina dem bay génnee xet goo xam ne képp ku nekk sa da cay lor waare doy na rekk ci waare yow mi lekk loo moomu ñu ne loo ñaan suñ boroom subhaanahu wa taala du ko nangu te mbokk mi tudd ko léegi ci xadis boobu mu doon wax kon mbokk yi nañu wataniku di jëfandikoo lu daganul moo xam ci naxe la moo xam ci sàcc la moo xam ci siif la ak mel noonu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Baye Salihou Ndiaye ci tontu ba am solo bi yal na yàlla barkeel xam-xam bi kon mbokk yi suñu beneen laaj bi dañ koy jëmee ci suñu dund société bi laaj la boo xam ne bëggoon neen ku ñu ko tontul ci français la question est quelle est l'importance de la paix et de ses facteurs dans la société Maintenant, vous avez la parole. Bonjour, L'importance de la paix dans la société. On ne saurait dénombrer les multiples raisons pour lesquelles il importe de vivre en paix dans la société. Il suffit de se rendre compte de ces antonymes, malheur, calamité, trouble, etc. pour voir combien la paix demeure nécessaire pour la stabilité d'une société, mais la paix est le résultat d'un certain nombre de préalables parmi lesquels nous pouvons citer la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de travailler, la liberté de vivre en sécurité et enfin la liberté de profiter de la souveraineté de la pays. Donc cette justice doit être appliquée entre les citoyens, mais aussi entre leurs dirigeants. On peut diriger pendant longtemps sans être un bon croyant, dit-on dans un adage. Mais on ne saurait durer au pouvoir sans la justice. On dit également que la justice construit et que l'injustice démolit. La justice est donc essentielle dans la vie de la société surtout venant des dirigeants. Le respect des notables et dignitaires de la société. Dans les limites des recommandations de l'islam, il est également une condition quant la continuité de la paix. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Merci de votre attention. Merci beaucoup Mohamed Awa Gueye kon ana kam moo ñuy leeral laaj laaj bi ci wolof te mooy solo si jàmm am cim réew kan moo ñu koy leeralaat ci wolof bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu lan mooy solo su jàmm ci am réew dana doy rek ñu ne jàmm ci réew ab safaanam mooy ñàkk jàmm nga xam ne saa jàmm ñàkkee da nga gis ne danga bëgg dara mu të la te lu ko waral ñàkk jàmm rek la boroom xam-xam yi àdduna yi dañoo wax ne bokk na ci màndargay jàmm caawu askan nit ñi dañuy am juróomi liberté yi mooy li ñuy wax liberté ci wàllu wax ak liberté ci wàllu diine liberté liggéey ngir amal sa bopp ak liberté ci wàllu jaww ji ak liberté ngir am sécurité ba doo ragalati lii ñu wax rek mbokk yi du tax ñu ne jàmm am na wala jàmm ji mën naa sax bokk na ci liy abal jàmm waaye di ko saxal maanute watandiku tooñ rawatina ñi jiite askan wi ñoom it di doxal ak maanute mbokk yi dañ daan wax ne ak nguur mën naa yàgg donte ki ko yor gëmul lislaam waaye ak nguur mënta yàgg fekkee ki ko yor ab tooñkat la ba tey boroom xam-xam dañuy wax ne maanute day tabax waaye toon di day màbb li wax la justice construit et que la justice démolit al adlu yabni wa zulmu yahdim fu amul ak maanute attey jaar yoon ak parparloo ak yu mel noonu jàmm mënu faa am bokk na ci liy joxe jàmm it topp suñuy kilifa bu fekkee kilifa lañu yoo xam ne meloo nañ melukaanu yi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم kon lii mooy solo su jàmm waaye lii it ñu mujjee wax mooy tax jàmm am ci bi réew yal na ko yàlla def ci suñu réew mii di Sénégal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Moustapha Thiongaan ci tontu ba am solo bi yal na yàlla barkeel xam-xam bi kon mbokki suñu laaj mujj dañuy sàkku kenn ci yéen mu defal ñu ab laabiire ci jàngaleb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci jàngaleb Serigne Touba bismillah waaw yóbbal biñ bëgg a jox suñu mbokk jullit yi jële ko ci njàngalem sëriñ Touba mooy ñu profitoo ci suñu dund gi ci àdduna ngir mën a texe ëllëg ci àllaaxira dunduk àdduna gi am na solo waaye nag dunduk ëllëg da ëpp solo sëriñ Touba daf ñoo wax ci njàngaleem dane na ngeen profitoo ci juróom yi balaa juróom a ñëw juróom yooyu ba ca jiitu waxambaane boo nekkee waxambaane toll ci sa digg doole na nga ci sa doole googu nga def ko ci lu baax njëkk màgget di la ñëwal ñaareel bi mooy bu la yàlla seddee ak wérgi yaram wérgi yaram googu nanga ko def ci lu baax bala laa feebar di la ñëwal ñetteel bi mooy bu la suñu borom bu la dénkee alal mu new wala mu bari alal ji nanga ko dépassé ci lu baax bala laa ñàkk ñëwal ñeenteel bi mooy suñu borom bu la jagleelee ak jot nga am temps nanga ci profitoo def lu baax balaa soxla yee ñëw juróomeel bi mooy jamono yi ngay dund profitoowal sa dund gi nga jagleel ko lu baax bala laa dee ñëwal lii Sëriñ Tuubaa mi ngi koy wax ci téere bu ñu wax tadawudu sigaar naan awaluha shababu qabla alharami wa mithluhu sihatu qabla alsaqami thalithuha alghinaau qabla alfaqri thumma alfaraagu qabla suxlin yasri xaamisuha alxayaatu qabla almawti fasaariu lilxayri qabla alfawti waaye mbokk yi yóbbal bi ñu joxe ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee ko ci xadis mooy li Muaaz ibn Jabal wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ëllëg yowmal qiyaama bi dana taxaw ca kanam boromam ñu laaj ko ñeenti laaj yi ba ca jiitu mooy danañ ko laaj sa dund gi ca lan nga ko jeexal bi nga amee kàttan nekk waxambaane ca lan nga ko jëfandikoo ba sa kàttan gi jeex waaye sa alal ji nga amoon ci àdduna foo ko jëlee ak foo ko defaat danañ ko laaj it xam-xam bi la yàlla séddoon loo ci jëfee mbokk yi lii lépp dafay tegtale ne jullit bi dafa war a góorgóorlu fu mu mën a toll di def lu baax balaa dunduk àddunaam gi di jeex ndax bu xasee jeex dara du ko jariñati fam nekk lu dul lu baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi wax ne laa tazuulu qadama abdi yawma alqiyaama حتى يسأل عن أربعين عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه jërëjëf Xaadim Njaay ki tontu ba am solo bi yàlla yàlla yokk xam-xam bi barkeel ko mbokk yi kon day mel ne yëgsi nañ fi yëkkatee jataay bi ñu ngi ñaan yàlla lépp luñ fi wax yàlla na nekk njariñal ñëpp mu jëriñ leen ci seen àdduna jëriñ leen ci seen diine di ñaanalaat bu baax sëriñ Mor Sy yàlla fayal ñu ko ak mboolem ñu mu àndal ci liggéey bi ci daara ji di leen sant bu baax yéen waajur yi yéen ñi nga xam ne it yéen a tànn barab yu mel nii indi ñu fi di leen ñaanal suñu boroom yal na leen fay waaye di ñaanal it képp ku fi teew yal na ko suñu borom fajal aajoom yu biir ak yu biti bi barakatil quraanil karim wasalaamu aleykum wa wa barakaatu. waaleykum jëf xale yi jërë jotaay bi ci ay question wala ay laaj yu am solo yoo xam ne yu leer nañ ñi la waaye ñi ko doon ton tontu tontu nañ ko ci anam goo xam ne gu gàtt la gu yomba jàpp goo xam ne jàpp naa ne ñun ñëpp jariñu nañ ci yàlla yàlla def leen ngeen ay ay mag def leen mag yoo xam ne mag yu am barke ngeen di doon